Acelera. एक jërëjëf Fatou Serigne Sall waaw santaat naa Serigne Béthio bu baax a baax a baax waaw waaw tey day tey day nag moom teraanga june nag june june sama digg ak soxna Sow Serigne Béthio jaarale waaye nag tey jii day euh, kat kat dot si bii moom la fi Serigne bi indi jëwriñ universel Idrissa Samb mu soxna Aïda Saliou Thioune moo ko fi indi def ko addiya jox ma ko waaw xam ni bu ko defee dana neex soxna si waaw xam ni soxna si bëgg na ko mu defal ko waaw waaw man de tey jii sax damaa xamatu lu may wax soxna si day ah wax la ko la ko sëñ bi ci waxoon lépp day def li maa koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko santaat naa bu baax a baax jërëjëf Thank you. billaay maa leen gën a bëgg waaw ndax man xam naa lu ma bëgg bëgg bëgg seen bëgg moo ëpp ndax yéen a ngeen ma ko lool waaw ndeysaan soxna Aida Saliou dey lii la ma defal taalibib sëriñ Béthio bi sëñ Béthio de fa mu ne bég na gëlëm yaa ngi nii nag yaa ngi nii xar yaa ngi ci biir léegi ñu génne leen fruit jaa nga ne wane na lu lépp manqué wu ma dara barke sëriñ Béthio maa ngi koy sant barke sëriñ ah sama gétt gi ñépp koy seetaan bi mu fa wàcceeg nëgë ni ku romb taxaw maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax Serigne Béthio sant naa sëriñ Béthio sant ko ci lim ma booleeg soxna su di sii mu indi teraanga yii fruit ji jeexul nag yaa ngi yeewee dara manqué wu sant naa bu wér wér wér wér sant naa bu wér di ñaan Serigne Saliou Mbacké yàggal ko fi mu wér lool te ay xéwalam yokk jërëjëfati Serigne Béthio soxna Maane moom Serigne Béthio waaw. rek kër gaa gi nii dara jeexu fi barke Serigne Saliou Mbacké euh, naan yaa ngi nii fruit yaa ngi nii dara jeexul maa ngi santaat sëriñ Saliou Mbacké bu wér di ko santaat ci nii mu ma booleeg soxna si tedd si. barke Serigne Touba sama dara manqué wul sama dara manqué wul sant naa bu wér jërëjëfaat Serigne Béthio waaw jërëjëfaat Serigne Béthio jërëjëfaat Serigne Béthio waaw. bu ngeen fi ñëwul woon def reportage it dinaa jóge fii ma nekk fekk soxna si fa mu nekk sant ko ndax ñun ay murit lañu ay cantaakoon lañu. te rek la ñu xam ndax Cheikh Béthio ñu yar avant sax mooy xuus ci waxtaan wi nag maa ngi baal ñëpp àq tey balu ñëpp àq tey ñaanal sëñ Béthio fa mu nekk yàlla na sax ci sëriñ Saliou Mbacké ndax lii lépp mooma man nag ni ma ko baaxoo di wax cant gi sëriñ bi dama dimbali ma fekk ci lu bare bare bare bare bare bare sëñ Béthio di suñu kilifa di suñu wasila ànd ak ñun ba jébbal ñu sëriñ saal yu Mbacké ba képp koo xam ni sëñ Béthio am na la yaa xam doom nga yaa xam mag nga wala rakk nga wala jarbaat nga soo joxee sëriñ yu Mbacké mu jaar ci saw sant foo ko joxee loxo mu jaar ci sa tuur jaar ci sa sant bu doon loolu rekk la buñ fa yemoon mënuñu ko fay cheikh bi waxalu malaat teraanga yi mu dëkk ci yoon lii ngeen fendi nag ci bisu sëriñ tubaab bi mu bàyyee ko ci soxna Aïda Saliou ñu ngi koy sant bu wér ñun kat ay jutit lañu ay murit lañu te ay gor lañu te ku ñu teral ñu sant la boobee ba tey bi ñu wàccee tubaab ba tey ginnaaw bi mu yee sali kër gi ba mel nii mu mel équipé ko def fi ay chambre à coucher def fi ay salon def fi de la climatisation wàcce fi nag yii mu fi wàcce boole ci berndeem yii mu ci def lii Serigne Saliou Mbacké santaane di Serigne tubaa santaane ci bisam bi buñ ko santul duñu ay murit ñu ngi koy sant te di ko seereel àddina ñu ngi koy sant te di ko seereel suñuy bokk te di ko ñaanal bu déwénee yàlla na ko gën a man yàlla na gën a taqaloog ngërëmul Cheikh Béthio jërëjëf